donc lépp lu ma fi wax rek si euh, si si si baax baaxu jigéen nag jigéen bu nekk bu ko dégg rek jàppal ni sa bos la. Mhm. Euh, je voudrais juste lire si tu me le permets benn texte bu ndaw bu ma def dem ci guddi balaa may tëdd euh, pour Amina Maimouna Ndour Faye. Mhm. yaakaar naa su ma ko liiree dina ma <laughs> alors. attendre ce jour, euh, c'est-à-dire une seule journée sur toute l'année, pour vous dire à quel point vous êtes spécial, est un exercice périlleux auquel je m'adonne toujours la tête baissée. Car en réalité, tous les jours, je dois me mettre devant vous et vous rendre un vibrant hommage. journée spéciale pour une dame doublement spéciale. je veux nommer Maïmouna Ndour Faye ou encore MNF pour les intimes góor baax na jigéen baax na MNF vous ne revendiquez point cette assertion mais vous en êtes l'incarnation parfaite le courage en bandoulière l'honnêteté intellectuelle de mise les pieds sur terre la tête sur les épaules vaillante sérère que vous êtes, vous avez su relever tous les défis pour enfin vivre votre passion, le journalisme. Femme très digne, dotée d'une personnalité qui impose le respect, MNF, vous faites aujourd'hui la fierté de toute une nation et de ces dames en particulier. Sincère et fidèle en amitié, vous assumez vos relations humaines et ce, quel qu'en soit le prix. Votre rigueur et votre dévouement dans le travail ont fini de faire de vous une femme leader exceptionnelle. Des générations, on en a eu. Des générations ont eu Aline Sitoé Diatta, Mame Fawa Douélé, Sokhna Mame et j'en passe. Et nous, avons Maïmouna Ndour votre nom sera gravé à jamais dans la fabuleuse histoire médiatique du Sénégal. À travers vous, MNF, je rends hommage à toutes les femmes du monde et en particulier celles qui évoluent dans le milieu médiatique. Mention spéciale à toutes les femmes de la Merci beaucoup Kadior. Mention spéciale à toutes les femmes et vraiment euh, ñu souhaiter une très belle journée à toutes les femmes Maïmouna Ndour Faye euh, Kadior ni mu ko waxee ci kàllaamay euh, français noonu laa koy waxee ci kàllaamay wolof di la wax jigéen du jàmbaar nga jigéen la bu nga xamante ni mën naa ne idole la référence la elle est très respectueuse ci liggéeyam bi muy def elle est très aimée et très appréciée du ma ne par tout le monde mais en tout en tout cas par beaucoup de xamante ni moo di liggéey bi surtout la rigueur euh, ñun dañuy ñëw toog ci plateau bi sax may mun a di ñu woo di ñu redresser ci li ñuy wax ci li ñuy def ak ci ñuy doxalee ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom suñu présidente euh, directrice générale Pape euh, ma bàyyi la nga sànni ci ay kàddu laataa ñu jàll ci beneen partie bi. bon euh, bon c'était pas préparé mais bon Kajoor da ko waroon def euh, olof quoi parce que émission bi olof la. <laughs> Joola laa nag su ma fi làkkee olof nit ñi dinañ ma bàyyi. français bi je pense que mu ngi noonu mais ni ma ko tënkee ci olof noonu noonu la rek. daal bon ah, bon en grosso modo. waaw en grosso bon c'était bon sincère et puis bon c'est une c'est une jolie euh, c'est un joli clin donc euh, bon MNF bon voilà. man daf ne nee na man philosophe laa quoi ma bizarre quoi mais bon <laughs> mais salu quoi de passage et puis bonne fête pour euh, pour toutes les femmes